déet bu ñu yaa fekk sa rek yaa was jot. kii jaasi day sukkal kii muy. mais. waaw waaw dafa am lu ma wax. aywa aywa. ça va. allez rek boo si jëlee photo. ma jëlee photo man maa ngi gisul du ma wax dara. waaw. monsieur ñu ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm. trippé bi ñëwul coono. Dakar loolu moom Fass voilà. Because dama jël lépp dama jël lépp voilà. ay foo ay caaxaan. quatre ans bi. yow rek la ñuy topp. bare bee bare. ana wasoon looy diwoo mooy xaaloo nga def. 상상으로 아, 와, 와. 맞아, 뭐, 누구? 네? 알 됩니다, 상황. sama gars yi. ah innovatif bi. xam nga kër si yow PC yi doo ko. bisimilah. mën nga ko taxawal TikTok la. waaw. leer na. bon c'est bon. bon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah tey nag kii taxawal ñu kii taxawal fii tey kenn dootu ko présenté fii ci réew yi macha allah mooy Boucher Ketchup tey nag dañ koo bëgg a laaj ñu may ñu benn aaya alquranul karim rek incha allah bismillah baad aoudu billahi mina shaytani rajim aoudu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawm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 بسم ربي من كل امر سلام يتامى على الفجر انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان سعيك هو الابتر benn nga ma waxoon may naa la ñett ikra bismi rabbika allazi xalaq loolu mën naa la koo jàngal ba suba waaye fii la ñuy fanaan ma yàlla yàlla fay la yàlla yàlla barkeel jërëjëf nga ñaan baax a baax a baax yàlla yàlla yàlla yàlla barkeel jërëjëf jërëjëf masha allah kenn du ma sax waaw Aziz kii nu muy def fii yow ah Aziz. man man man waaw jeex na léegi jox jox jox ma Souleymane. Gora Ndiaye. jox ma Souleymane. waaw Fadam. Gora Ndiaye la. kon mat la. waa Canaba yi Aziz Ala Ndiaye jox leen joxati leen nag. mi ngi koy soog canaba canaba boobu ba tey ba tey bëgg naa nag jóge fi. dem canaba dem jot na ko ci waaye mujj na koo def. bu fàttali tamit Ndiassane. Ndiassane seen nag dem na dem na. instel ci loolu. Morola day dem. ndax ku ne xam ne ay fépp la. waaw dafa dafa la Morola. aéroport waaw waaw waaw travaux waaw. waaw Alaaji waaw

Aziz Sophia. non na ñaar nit dugg rek. dama leen buum ci biti rek. xam nga bay bay. waaw. moo rek. ah il la. ñaari nit la ma wax. non te te te te. maa ngi jaar ba. eh. ana Pape. ma nga nekk am na kuy jé. ñoo ngi borom aéroport borom nag yi muy Tiwaawoon muy Touba muy fépp. macha allah dañ koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokku yàlla na ko yàlla may wér yàlla guddal fanaan. ya barke alxuraanu karim